trois espoirs. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen siyaar mbokki yi nag ñu amaan mbégte tey ñu dalal ñaari ndaanaan fas yéene waxtaan ak ñoom ci la 7 août la 7 août nag Gaston production moo woote ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux tàkkusaan googu Tmax dina ci bëre ak Ziza ñooy bëre spécial bi Makan Mbeng di delloo njukkal papaam tëgg Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux tudde darapo bi Gaston Mbeng yaakaar naa ne 92 ba léegi Gaston Mbeng mi ngi ci làmb ji fanweeri at yi bu matul yaakaar naa ne tegal na ñu koy delloo njukkal macha allah mu nekk loo xamante bi ne am na solo trop trop trop ñaari ndaanaan nag di ko bëre ñaari ndaanaan yi nga xam ne bëre woon nañ 31 suñ papa Luc Nicolaï tëggoon ko mu nekkoon combat bu neex booba ak léegi Gris Bordeaux 2018 la gëj a bëre Balla Gaye 1er janvier 2022 bii ñu génn moom ak Bombardier la woon ba mu bëree Gris ba tey am na fi benn victoire am na fi benn defet boobu ba léegi nag Gris Bordeaux ci défaitu Balla gay la toog ñu war a mal nag dimanche bi di ñëw incha allah bu delsee fële ci arène nationale bu Pikine ñu fas yéene dalal ñaari ndaanaan yi nga xamante moom yaakaar naa lu xeetoog ambiance ñooy borom ñoom la ama ñooy amateur yi mobile lay nuyu di la ziare. maa ngi lay fay. delloo siyaar sant nañ yàlla bu wér a wér a sant. Hmm. Hmm. naka tabaski waaw sant waaye nañ ko si jàmm. Hmm. bi baax rek. nag yi moo fekk fii nag yi. ah lii yàgg na fi de. ay xar laa fi doon fekk. <laughs> waaw nag yi moom bëri na boo jàddee nii sax am na <laughs> yi moom bëri nañu éleveur da si laa judd moom laa xam. moom laa xam. moom moom yaakaar naa li ñu li ñuy yar gayndeeg jaan rek laa ci dul yar <laughs> <laughs> <laughs> waaye bu ko weesoo moom lépp am naa ko bu ma juumul. Hmm. ñu dëgmal la set août Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux seen état de forme yi nga xam ne ñi ngi koy seetaan ci réseaux sociaux yi nan nga gisee état de forme yi. ah waa baax na ku ci nekk entraîné li dal xelam. Hmm. waaw xam lamb moom li dal sa xel ngay def. Hmm. mais yàlla bu seen lamb romb 5 minutes rek. loolu. Ah, yàlla na jël lamb balaa 5 minutes daal. Ah, bu njëkk da joxe woon nan waaw bii nag yàlla buñ fa yegg buñ bu cinq minutes rek. <laughs> as dafee dox wala ñàkk a mën dafee dox wala ñàkk a pare dafee dox. moo tax nag am na yenn yoo xam ne bu la ci kenn nax. dama lay wax ne la. yaxu 19 ans li muy def yaxu 30 ans du ko def. waaw ku ci xuloo yow tooñ bi ngay xale yow bëri na loo doon def loo xam ne nii ku la ko bëggoon def loo seete woo xaj na ci. mi ngi mel ni nga toog jeg saay na bëreet. <laughs> yombul. da bëgg na am na lu dox ci diggante bi. wax lu bari dox na ci. mais tamit loolu foofu la ñëpp jëm. Euh, Gris Bordeaux yaakaar naa ne avant 2000 commencé na di bëre Balla Gaye numéro 2 premier janvier 2005 wala le 2 janvier 2005 la dugg ci làmbo. Mm-hmm. ñoom ñaar essan yi nii combat bi ci kan la gën a diis Gris jóge ci défaite gëj a am victoire digganteem ak euh, Tyson wala Baye Mandione 2011 ba 2022 ñaari victoire la fi am Balla Gaye numéro 2 2018. ba 2022 benn victoire la fi am ak benn défaite combat bi ci kan la gën a diis. làmb dootul diis ci ñoom parce que nit dangay nekk ci benn métier di ci yëngu mais dangay dem ba toll si foo xamante ne nii nii nii nii diw dee na sax dootu ci diis si yow. làmb day toll foofu am na ñoo xam ne làmb mënatul nekk ci ñoom événement jeex na romb nañ loolu ci làmb mhm. bëri nañ bis bu ne. mbooloo mu ne tiim na leen. daanee nañ nu ne. daanoo nañ nu ne. nii leen nañ ñu ne romb nañ loolu ci làmb ok léegi eh, li ma la bëgg na laaj mooy que combat bi le 7 août la amateur yu bëri dañ ne la xewoon 2018 bëri ba mi-temps dem naa ndox ñëwaat mënatul am. ah waaw yàlla bu mu am yàlla bu mu am làmb moom amateur yi xaaruñu si yàgg neex lañ siy xaar. bu dee une minute te lépp neex rek moo daaxal amateur yi muy 30 minutes te soof leen. Mm-hmm. xeex ba fa amoon mën naa amaat. ah mun naa am. parce que ñoom ñaar seen i bëre daa jóoloo seen tànk daa jóoloo pied pied droit la ak pied gauche pour kenn ki yegg ci moromam fi mu ko bëgg a yegg faaw ñu weccoo ay loxo loolu c'est forcé la mënul mm. ñàkk mm. même bu dee du xeex buy dëggu it il faut que mu am pour kenn mën a teggi tànkam ñu mun a daje mm. runkum daje buñ ko defee jàpp ngemb ku ne jàpp ku ne jàpp bëre bi tëjuwaat tëjuwaat waaw kon bëre bi lan mooy tax mu facilité facilité am ci mu yomb bëre li koy facile dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy Gris pour mu daan Balla Gaye faaw mu yegg Balla Gaye fi ko neex te Balla Gaye waru koo jàpp mooy song mi mu koy song faaw mu song ko ni mu ko bëgg a songee te Balla du ko jàpp mais fu ko Balla intercepté ci yoon bi ba dugal loxoom jàpp bu jàpp Gris Bordeaux bu ko Gris Bordeaux jàppee ba teg a ko def kon combat bi ay coach koy gagné wala ñoom ñaar coach moo koy gagné ok hmm. macha allah mobile numéro 2 boy Balla Gaye de Gris Bordeaux noo gisee. waaw que le meilleur gagne rek. yow hmm. waaw ñoom ñaar yëpp samay mbër lañu que le meilleur hmm. waaw. gis nga ne dina yàgg combat waxuma ko faral dama lay laaj rek noo gisee. combat bi waaw mën na yàgg de. Hmm. mën na yàgg. tamit maanaam li ko mobile waxee rek. suñu bëree si ñaata minutes. suñu bëree si euh, trois minutes kenn daanut. njëkk yi waaw yu njëkk yi mën naa metti de. ndax ñoom ñaar ñëpp ay bagarreur te kenn ku ne du du bëgg sa morom sa moroom daan ko. kon maanaam lépp daal combat bi daal mooy loolu. combat bu combat bu nar a metti la. bu nar a metti la narta gaaw nag. narta gaaw combat mu gaaw de. mën na doonaat mën na doonaat euh, na mu doon. waaw am naa ci naa ci yaakaar lool. waaw amateur duñu dama gis lu garaaw si giri maanaam. bi muy bëreeg Balla ngem liñ ko ngem. waaw waaw maanaam ngem loolu noonu maanaam buñ ko ko ngembaatee. Balla coono dina bari de. ngem bu xeer waaw ngem boobu noonu maanaam pour Balla gay dugal loxoom. ndax Balla gay moom góosam bu jàppee ñaari baaraam bu jàppee day liggéey. ok waaw. da nga gis ba la fa xewoon problème mu ngem la ba mënta jàpp. waaw problème mu ngem la de. problème mu ngem la de am na ngem loo xamante ni am na ngem boo ko takkee ni nga ko war a takkee normal mm. pour dugal si loxoom dina jafe de. ok waaw mais loolu lan moo koy waral mbër di bëreeg mbër ngembu ngembu loo xamante bi nii da ngay bañ mu jàpp lan moo koy waral bëgg a def li nga def wala fiir mu jàpp la. waa du yow mbër mi sax de ñu topp si ginnaaw ñooy xam loolu. ok ba la mbër mu la ngem li ñu ne war ko defar ngem li war nañ ko defar ba baanaam loxo du si dugg tey maanaam loxoom du jàpp waaye Balla Gaye boo ko mayee loxoom jàpp mm. maanaam mën na daan ku ne mm. Balla Gaye mën na daan ku ne mm. waaw. am na solo mobile des fois loolu tamit dañuy faral di ko gis Eumeu Sène di ko ngemboo ñii ay cuisard ñii di ngemb di ci dugal lii. waa xanaa gisoo ngembal Aliou Seye lii ni mu ko corsé. waa loolu am na léegi. parce que xaw ma nu ñu koy waxee noonu. waa kol xaalis. mooy da koo escorché. Aliou Seye daa escorché ngemb. wallaay lool. bilaay laal gi da koo escorché. Aliou Seye da maa ngi ko wax arbitre yi naa leen waa kii koro seen ngemb lii moom maanaam arbitre bi na ma arbitre ma yow amal ci fulla rek. ah am na ci droit. amal ci fulla non escorte ngomam maa ngemb. am na def ngembam nu ko neex. non loolu amul loolu doxut. zos zos ngemb bu amee loolu bis bu amee kenn dootul jàpp. Hmm. loolu nañ ko xool si làmb. loolu bis bu amee. Hmm. dootul jàpp. gisoon naa ko Iba Mar di ko dindi xaw ma arène national la. es hmm. di ko dindi. waaye loolu baaxul loolu nañ ko seet loolu nañ ko seetluwaat si làmb waaw loolu nañ ko seet si waat bu baax a baax a baax momil njëm de làmb de moom xam nga làmb ak lido ñoo yem noo omee rek xool làmb moom lépp pexe la Zos sax ñëw na ñu ne ko guy gi yenukat la mu roccantal ngeembuli guy gi jàpp bàyyi ko mu bàyyi ko ak moom mu bàyyi ko mu buddi ngeembuli teekee ko mu bàyyi ko mu rëpp làmb moom léegi moom xeetu ngeembuli da nga fiy gis parce que boo xoolee booy buñ tegee ngeem buñ takkee dongali ba pare buñ ci tegee jalga ci kaw dootoo ko jàpp. ok jalga mooy comme nit takk ngeem bu lu weex des fois nga gis mu toj tolee ko bula wala lii wala laa. Mhm. loolu nag dafa am ñu ko doon mën. boo xoolee comme ay Maama Lamine ñoo ko daan def. wala Cheikh Ousmane affaire yooyu noonu. Mm-hmm. ñooñu ñoo ko indi ci làmb quoi ay Cheikh Ousmane Sarr. affaire yooyu ñooñu ñoo doon def loolu quoi. Mm-hmm. dañ daan ñëw mbappat bëre ko ba mu jeex nit du jàpp seen gemb. incha mm-hmm. moo koy waral tëj bëre la wala bëgg a def li nga def. waaw non dafa am dafa am mbër yoo xamante nii seen jàpp moo baaxul. ak koo mun a doon bu ñu jàppee rek li la naqari mun na la cay fekk. loolu day am ci ay mbër quoi dafa am ñoo xam dañ dul jàpp dañuy jàpp duñ jàpp te duñ bëre. duñ jàpp di fa taxaw di xalaat buñ jàppee rek bëri la. Mm-hmm. voilà loolu moo ko doon indi léegi nag yàlla day dogal des fois nga dajeek adversaire yu mel noonu. Mm-hmm. mooy indi loolu noonu. Mm-hmm. forme Balla Gaye Gris Bordeaux nan nga ko gisee la xewoon 2018 ñoom ñaar gën a pare amoon na ci parce que 2018 ñëpp dañ ne Gris moo gën a pare Balla ci image yi ñu gis par rapport Balla Gaye forme ba mu yoroon 2018 ak Gris forme moo gën a na taxaw instant yi seen forme yi noo ko gisee. waaw instant mooy li ma la ci nekk àndal na xam nga ñoom ñaar bëri woon nañ ku ci nekk amoon na benn faay boo xam ne jàppoon nga ne moo tax daanoo sa morom voilà léegi kon ni bu taxawaatee ñoom ñaar te ñu nekk benn sportif au niveau boo xamante ni damaa jàpp ne ku ci nekk da ngay dem liggéey li nga jàpp ne boo ñëwee te moo la xañoon keroog moo tax ma ne la sànq ku ci nekk def na dal xelam léegi nag ñun ñi ngi toog di xaar ñoom liñ liggéey lan la mais tamit ñi ngi xaar tamit maanaam làmb ju teel a jeex drapeau Gaston Mbengue Makan Mbengue di ko delloo njukkal nan ko gisee en tant que mbër muy seen papa ci biir làmb waaw loolu du xew-xew loolu du tamit du challenge du dara. doom jee ngi sargal baay ji moom loolu bëriwul ñu ci. doom ji teral baay ji moom wàcc na rek. wàcc lan ngay tàggoo. waaw Modou di wax ne waaw santaat rek. Mm-hmm. santaat bu baax a baax a a baax a baax. Mm-hmm. waaw kilifa yi ma ñaanal daal yi may yi may ñaanal yëpp. Mm-hmm. sant naa leen bu baax. sant naa leen bu baax gis naa seen taxawaay. gis naa seen taxawaay bu baax a baax a baax baax. waaw di wax ne gars yi jàpp leen rek. jàpp leen ndax moo demagul fenn. ñan nga war a bëreel. waaye ñi mu war a bëril muudu bari na. Hmm. bari na ñi war a bëril bari na. Alioune Seye da ko koo langal ba bëree moom da ngay ñaan sens da ngay jël combat jànq. waaw damay euh, combat jànq bu baax bu ñëwee baax na combat sens bu ñëwee baax na. bu dee sens kan la. bu dee sens. waaw ah. waaw Zos na ma may sens ñu bërëm ñu bërëm. Zos benn Zos. day këpp yalwaan de. jot na promoteurs yi. combat boobu noonu ñor na ma lool man ak Zos. këpp na yelwaanu Boy Niang ak Guy gi Tidiane Faye waa loolu amu problème man maanaam noo may sens rek. may ñu bëre waaw ñu bëre. bu dee combat jànq. bu dee combat jànq ku ci mel ni gàmmu Guèye fi. ay ay xaru de. waaw ku ci mel ni Alioune Seye dëng si. yow da ngaa bëgg ku la dóor ba ba yeew la yeew. Alioune Seye dëng ku mu mujj bëreel. Alioune Seye dëng Issa Pouye la mujjee dóor mu daanu. Ah, voilà kon nañ ma nañ may na na may sens. nga ni mu def Issa Pouye. loolu amul problème. man Alioune Seye 2 maanaam gis naa taxawaay bi ñu taxaw Alioune Seye junior mm. loolu rafet la waaye dama bëgg waaw turandoom la maanaam kon boog turandoo gi nag damaa bëggaat moom mu ñëw jël sa revanche bi mais Alioune Seye instant yi ay combat ay combat dox na seen diggante daf la raw Alioune man man nee naa ku def onze combat mm. onze victoire mosoo dégg mu ñël mm. ko kenn raw ko si làmb <laughs> macha maanaam dama jot dama jot dama jot si làmb pour am xaalis man amaguma dara man képp ku ma bëgg jàppale rek nga ma jàppale si làmb man làmb moo ma ñor waaye jot naa fi mu ne pour am xaalis ndax maanaam moor bu demee bàyyi sarax di ko manqué maanaam làmb lam metti na. sa combat sarax daf la manqué. wóor na yàlla laa liggéeyal sarax dafa dafa manqué combat bi metti na lool waaye nag dama cee sant yàlla bu baax a baax a baax baax ndax loo gis yàlla sunu borom moo koy maye. macha ndax tey bu ñëpp ne dangay dangay daanu tey yàlla doo daanu tey. Mm. doo daanu kon maanaam cat naa si bu baax a baax a baax. Mm-hmm. waaye metti woon na lool nag. jaajëf waaw woon na lool. am na solo mobile 2 lan ngay tàggoo ñu ngi ci cëppaandaw gi di la santaat bu baax di la gërëm ci disponibilité bi. waaw li ñuy tàggoo rek mooy di kontaan ci jotaay bi mais di wax suñu mbokk bawol bawol yëpp ne leen làmb affaire gox la te it loo teggi say doomu gox te defaloo leen ko di nga ko defalee ay doomi jàmbur mhm. Mor Kankang ci làmb xëy na du Balla Gaye du muut loo mhm. mais ci ay moroomam boo ko tuddee di nga ko naw parce que def na ko ci. moor mhm. Kang ci làmb mhm. warul taxaw di wax ne man bëre naa samay sarax sax di am jafe-jafe génn. te dama lay waxal ne la. Mhm. làmb amatul amateur amatul supporter bawol bawol yi ñoo si des ñun duñu ay bawol bawol de. waxuñu ko pour lu leen neex. mais bu dee ay amateuru làmb ak ay nit ñuy jàppale nitu làmb bawol bawol yee si des ñun ñii ñiy yëkkati ay millions di ñu ko may ay bawol bawol lañ. kon nag bu ñu yoree seeni doom yoo xam ne def nañ ñoom ñun lu ñu deful man defuma onze combats onze victoire. man defuma loolu te ñoom mun nañ ñoo jàppale ay millions kon nañ jàppale seeni doom ñoom man am naa gëm-gëmu ne hmm. làmb mun naa cee def lu ne mais ñoom bool bool yi bu ñu suudee jàppale seen doom yi ñu war a jàppale mun nañoo am mbër mu ñu bëgg mais nag gëm-gëm lay doon hmm. moor du lu mu toog du li mu doon sama mbër wala dara hmm. bawal boo yi ma ci gis yëpp ay ndaanaan lañ mais gëm naa ne jàppale bi ñu ko war a jàppale bu ñu ko ko jàppalee billaay wallaay taala lu leen naqari ci làmb mun na koo faj parce que làmb du dara lu dul bëgg-bëgg bëgg-bëgg kese la du leneen te mu ngi ci moom capable bi mu ngi ci moom sañ-sañ bi mu ngi ci moom mën koo def mu ngi ci moom li ci def du dara lu dul jàppale ko dooleel ko te mbërum làmb jàppale ko du lenn du yenu ko di yóbbu fenn du yanu ko ci yóbbu sëriñ mbërum làmb ci moyen dong nga koy jàppalee bu xel mi dalee rek mu def li mu bëgg a def amul luy jàppale mbërum làmb du may ko oto du may ko lii du may ko dara jàppale koo xaalis rek bu xelam dalee rek mu def li mu bëgg a def yee di woon ak Sénégal képp ku ci mën a jàpp rek na ko jàppale te man ak moom dinañ ànd tànk ak tànk si ñu ko war a jàppale loolu moom maa ko promettre àdduna ñu ngi koy dégg Cheikhou Kouyaté sama xarit la nekk capitaine équipe nationale di suñu jour ñun waa Grand F Mbaye Diagne nekk suñu jour dëkk ak ñun dëkk Grand F di ñu jàppalee alal ju nekk mais na xam ne bis ñi ngi tey kii si ñun la bokk li ñuy def si ñun dañ ko war a def si ñoom te dinaa ko jàpp ci loxo ba ci ñoom mu toog ñoom dinañ ci def li ñu war a def bu soobee yàlla incha allah. macha allah mi ngi noonu yaakaar naa ne kaddu yi mobile de yëkkati kaddu yu gor la kaddu la yoo xamante bi nii ki ko war a na yëkkati mooy ki bokk ak Mor Kang ki ko war a na yëkkati mooy nijaayu moor Kang Kang ki bokk euh, yaayam ndey baay macha allah kon bu fekkee ne am na yéene boobu ci moor Kang Kang yàlla na ko yàlla mottali àdduna moom lii rek moo fi nekk ku la yàlla booleel xaaral rek tóortaar wërsëg ak ab ànd yaakaar naa ne ñoo yem heure bu dat ba jotee rek incha allah dina yomb Mor Kang Kang ba yàgg na bëgg gisee ak mobile 2 gis nga mu wax ko te boobu yàlla antalu ko gis nga yàlla mi ngi koy doog a antal di leen jox dig daje ba beneen yoon du ci seen lamb TV jërëjëf. Mor Kang Kang ñaari mbër yi dara amagul borom kelemale ak doomu yëmbal bi ndeysaan dara xewagul combat radiateur la Modou Anta door na door na Mor door na. Modou Lo ngay def na wóor. Alioune Seye senior Mor. Alioune Seye tey dafa tey Modou Anta. tey deful dara. tey dafa ànd ak service si combat yi Mor dana laawoon na. Mor day laaw de. coppet yor ba tànk ba. jàppante nañ ñoom ñaar. daw na jël ko moom Mor. Mor Kangan jàpp na ngemb. mi ngi koy xëcc. Alioune Seye nga bëgg a génn Mor Kangan si géew bi pour ñu bëree. Alioune Seye door na. Alioune na ko mu bañ. jëlaat na ko ci suuf nga Ali door na ko tippaat na ko ci suuf Mor a ngi forcé bëre bi de jàpp mu lay ko sarana Ali Seye na ko Ali Seye fu ñu lay ko sarana oh, oh dafa diis Ali Seye daa diis dafa diis anta Ali Seye li ngeen si combat bi bëgg naa génn Mor te fu ñu lay ko sarana foko Mor yegg sori na sarana loolu Mor anta dañ fa génn wala dafa génn nu mu koy def Mor Tantal Aliou Seye. ko jàpp baax na Serigne na loolu Modou Anta ak soobee laay topp Modou Anta. dafa diis topp ko légèrement. Aliou Seye dafa diis. tibb na ko tënk ko. la ilaha eh. illa waaw waaw. Mor Tantal Aliou Seye. la. tànn na ko. nañ 11 combats 11